waaw affaire Mame Mbaye Niang bi euh, déjà man euh, surtout décision bi nga xam ne jëloon nañ ko en première instance man j'étais d'accord pour ça parce que aussi nag état de droit la ñuy wax respect des droits des uns et des autres et donc Ousmane Sonko aussi mënul jóg yàq deru nit ba pare indiwu ci preuve et c'était important que quand même euh, la justice se se se prononce sur sur cette affaire man man moom je suis j'étais complètement d'accord parce que euh, mbir tamit doo xool doo xool euh, maanaam man je suis dans dans dans les man daal je suis dans toujours dans dans mes interventions je veux toujours défendre les principes les principes de base tey jii ku ci nekk bu ñu yàkkee sa der war ngaa mën a am possibilité laver sa honneur te ils l'ont amené au tribunal et c'est ça et malheureusement li gars di faral di wax yow a fu mu àgg du ma àggu fa kon euh, quelque part euh, c'était tout à fait justifié euh, cette décision ma saluer ko par contre j'ai pas bien compris ce qui s'est passé après j'ai pas compris franchement ak délai affaire bi convocation bi kii bi indi affaire bi avant la fin du délai de xawma d'appel euh, ñëw alourdir kii bi moom par contre ça j'ai pas compris mais franchement mais la décision de en première instance moi j'étais vraiment waaw ouais, mais après la suite nan nga koy qualifier vous n'avez pas compris mais nan nga koy non mais euh, par la suite mais man li ma ci gis moom mooy li ma wax l'enchaînement euh, les circonstances vraiment qui ne qui qui qui qui qui prêtaient vraiment à à équivoque ah,